soo amatee lu la jaaxal sa wér-gu-yaram gaawal gaaw mbokk yi ñëw contacter seen xom médecine bio 100 pour cent woowal madame Diagne mu gindi la si numéro yi di 77 127 19 53 77 127 19 53 wala 76 492 70 48 76 492 70 48 ay ngëneel li ngay fekk fii si seen xom jàppal ni am na nañu machine détectrice d'anomalie maanaam machine bi bu fekkente ni dañ ko teg sa yaram dina la wan lépp luy gàllankoor di jàngoro bu làq woon su ko defee nag nga mën a teel a jóg sa bopp def say traitement ba tey madame Diagne moo lay gunge si yooyu traitement ndaxte ay rendez-vous la lay jox ngay ñëw di koy topp ba mu jeex tàkk boole kooku mu lay wan garab yi baax sa wér-gu-yaram ay garab yoo xamante ni boo ko itteewoo xam ni amul lenn toog yi gaaw na efficace na te nag moo lay jàppale dimbali la ba nga mën a am taw fer santé de fer madame Diagne si seen xom leen di biral ni bu ngeen ñëwee fii si seen xom jàngoro bu leen jaaxaloon bokk na si hémorroïde bu feeñ bi wala bu nëbb ba dee également biir buy metti bu fekkente ni tamit jàngoro jigéen lay doon doon kyste wala fibrome wala règle bu fekkente ni danga doon góor am faiblesse sexuelle mu doon éjaculation précoce gaaw a loolu wala sax nag dara doxul ak sil fii seen xom garab yi lay faj moo ngi nii bu dee da am problème ci wàllu articulation wàllu sidit sa yax di métti wala sa deret am problème wala nga am ay feebaru ndigg wala sa ginnaaw di metti sa loos seen xom gaaw na ci loolu indil leen loo xamante ni bu ngeen ko itteewoo jàpp tàggoo ak bu ngeen amee diabète bu ngeen amee sinusite ngeen soj soj bu leen jaaxal problème mu dënn maladie yu chronique yoo xamante ni sax nag dala sonal loolu seen xoom taxaw na tem ngir indi si saafara ba tey machine minceur baa ngi nii boo ko itteewoo en un temps record nga mel na la neex fii si seen xoom jàppal nii am nañu également machine bu lay masser sunu ay garab kenn du ko natable ca baax ca gën waaye tamit yomb loolu boo ñëwee jënd sa ticket 6000 francs yu taxaw sëy mbëbët faj la accompagner la seen xoom paj bu yemb